na xëy di guddee wàcc lu ñëw da koy liggéey dafa bëri métier ok bay góor courant ngi lay xaar lamzo iri bisu ñoom ñaar kër gi lañ def baar kër locataire bu bëri détail garu waale wax yu sew yi gaawal cotiser si courant bi balaa ñu koy couper kura Caroline Maye Korak lamzo si biir kër gi jóg bàyyi góor bàyyi góor moom fajar mu jóg bàyyi góor bàyyi góor maa bu xëyee du toog bàyyi góor bàyyi góor anañ koy fayee ko boor bu xëyee di taaba taaba bàyyi góor xale li ma la alal trente mille yi yaa ngi neex na de. nii moom mi ngi nice quoi nii moom ñu ngi si tournage bi te xam naa xaar fi mu ne nii moom sotti xam ñu ngi dóor loo xam bu génnee. maanaam. te maa ngi sol. nekk lu ma gëdee gëdee. waaw si quand même vision la voilà. waaw yaa ma waaw quand vision. kenn du ko jut. maanaam nekk na télé boo xamante ni bu am solo la télé bu am sax la parce que mi jàppale artiste la tous les artistes comédiens Kémane Vision mi ngi lay jàppale mu ngi lay génne mi ngi lay lancé mi ngi lay yokk ca kanam ba ci man mii di wax man Bouton. Kéemaan Vision moom moo yóbbu sori sori sori sori ak kon nag Kéemaan Vision li ñu si mën a wax ca kaw ca kanam yéen artiste comédien bëgg ngeen jug jàppale Kéemaan Vision ñu ànd moom liggéey ñu dem ca kaw ca kanam te liggéey moom dañ ko gis de man gis naa sama bopp eh, tey sama gars yi dem Kéemaan Vision dem fa ca kaw ca kanam. dèjà dama nostalgique te euh, tournage bi jeexagul. ndax nak deug yalla yag nañu tourner mais ndam la ak honneur ñu tourner ak ku melni ni Modou Diop borom Kéemaan ci Kéemaan vision en toute sincérité man dama nostalgique té gaay yi ko koo ko ñu waaw fierté ak ndam ndax euh, ci confort bi ñu lay teg rek Euh, dafa dal xel ci artiste macha kontaan nañu ñu ngi soog a door yàlla nañu yàlla may ñu yegale suñu ñaan yàlla bàyyi góor yàlla teg ci loxo. amiin si mais xam nga da ngaa xew. bàyyi li ngay wax waay eh, nga jógee ba Gambie ñëw fii ah. non fekk euh, li ma fekkee macha mhm. yàlla yàlla yokk mën bi xam te ma fi ñëwee bon moins de quatre heures de mhm. te gis naa ni gars yi yaatal nañu ko. yaa man li ngay def rek boo mun woon li ngay def gars yi duñ la jox dara mais xam naa ne kon ci kanam eh, a mën a war a ñëw Gambie mhm. mhm. Mhm. te ànd balaa neex te xam nga man damaa ñëw rek di may lëmbe di lëmbe dëkk bi lëmbe kër gi lëmbe bàyyi góor lëmbe waa kër bàyyi góor te ci laa fas yéene lëmb réew. cadreur bàyyi góor waaw maa ngi nii de cadreur bàyyi góor di takkale rek naka Baye Góor. Baye mu ngi neex rek gars yi ñu apprécié mm, sant yàlla production mag la vraiment waaw di doon ay produits yu mag ay comme ay yeneen. ngi yéen a ngi waajal de femme. waa soir de femme ak yeneen ak amour fatal yeneen. waaw mooy monteur monteur Kéemaan monteur kii yii yëpp da ci am ah? maa ci gën a daw balaa ngeen joué dañ leen defal ay ay sëñ bi mooy sëñ bi moo investir lii. Ah? automatiquement pour kii rek ñëw di defar gars yi. xam nga lii kéemaan rek a ko mën. waaw waaw moom moo moo waaj 2023 lan ngeen di wàcc. waaw 2023 ay surprise yu am doole. Mhm. yu extraordinaire. kon mhm. gars yi. yan série waaw bari na. Axiru Samaan. waaw waaw Soie de Femme Soie de Femme Saneex romanteer yi Baye Góor saison 2 Baye Góor Géeg ak mhm. yeneen ak yeneen ak yeneen ay surprise yoo xamante ni nii. Mhm. Sénégal di mhm. kontaan ndax kat. Kéemaan Vision dafa ñëw. ñëw ak doole te xaar leen ni 2023 bi. ñu ngi waajal ay yu garaaw ak. mais man kii laa ciy waxal. la 6 9. sotti seeg def si la. gars yi kii la. tulli na bàyyi ma mbalax. mbalax kon li mu wax déggoo li ma leen wax. xoolal xaaral te xam nga ko bëgg nag. dee leen abonné. Mbaye Lembe. dee leen abonné. parce que sëñ bi un million d'abonnés la. soxla. Mhm. di gis ne bis bu ñu yàlla def ban am ko. Mhm. wuy sama ndey. waaw comme ni nga waxee rek. ñu doon ni moom xaw ma ay ko jëm bopp la. Mhm. ndax képp nag dafa indi ambiance bi tàq. incha allah xam nga ñëpp xaar. ñu ngi si sànq locataires yi ñu ngi si bàyyi góor gi ñu ngi soxla bu si yéene yéene kon nag wàññee ko kay ñu ngi grand réalisateur amul benn temps waa ji xoolal su ma ko nee laaj sax day bañ. amul jot sax sama jot amul sax sama jot. Ah, mais ma xam naa ne amoo sama jot mais may ma benn une minute rek. benn une minute Vision saa neex locataires yi soit de femme. waaw Akhiru Samaan série yooyu nekk ci kawam di ko liggéey. ah lan ngeen di waaj 2023. 2023 franchement su ma limee sax nii nii nii nii xoolal damay juum si lu ñuy waajal sénégalais yi 2023 mais xoolal nañ pare parce que Kémane Vision mu ngi ñëw ak doole abonné yi moo yéex million d'abonné bi sëñ bi da koo soxla ah waaw un million d'abonné bi sëñ bi soxla na ko de waaye nag xoolal waaye gars yi jàmbaar lañ ah. bañ ko waxee boobu ba léegi ñoo ngi ñëw ñoo ngi ñëw ñoo ngi ñëw ñoo ngi ñëw ñoo ngi ñëw moo ngi kawe kay dañuy wax xoolal ñaaxaat la ñu gën si jàpp gaañ un million d'abonnés yi soxla ak nu mu gën a gaawee comme ni mu leen ko waxee woon gars yi ale mbëkk dóomu daanu dóorum daanu ñu wàññi garaaw mhm. ñëpp xaar ci Kéemaan Vision lay xëy macha allah bari mais liggéey fii yéen a ngi sant seen bopp bu baax ñu ngi sant suñu bopp bu baax namu leen beneen label kéemaan amuñu fayam amu leen fayam amuñu borom teranga la ndeysaan ñu ñaanal rek yàlla ko mu kette bi ak suñu ganaay ne si ginnaaw comme yow mi yor caméra cum waa jaa ngi day dem ba kër ma jëbel nga def góos romb kër alaaji Ibrahim Niass ah kër Sambaraxin Dramé kër Sambaraxin Diobène yooyu sax xam nga ne ju am rek waliw la borom xam-xam la nga def production bu toll nii Baye Góor saa neex ak locataire ci Vision ñu gis si 2022 bi Kimane Vision def lancé bu am doole presque éteindre 100% euh, ci lim daan am lan ngay 2023 bi. ah ay ay yu <laughs> am bu mag dramatique. waaw bu tudd Zaman bu jamono. Zaman ah, soir de femme fu mu nekkoon. soir de femme ñëw kooku. avant aussi locataire amul arrêté. bëgg parce que un dama gars yi di gars yi di seetaan un million d'abonnés la sëñ bi laaj voilà su ngeen ko amul nag 2023 bi du neex. wàcc lu ñëw da koy liggéey dafa bëri métier ok bay góor kuraa ngi lay xaar lamzo iri bisu ñoom ñaar kër gi lañ def eh, ba kër locataire bu bëri détail garu waaleeg wax yu sewi gaawal cotiser si courant bi balaa ñu koy coupé kura Caroline maye koorak lamzo si biir kër gi Assane cousin wu bay góor la femme ngatam commerçant bàyyi góor bàyyi góor ah bëri na joo bàyyi góor bàyyi góor Mom fajar mu joo bàyyi góor bàyyi góor ah bu xëyee du too bàyyi góor bàyyi góor nañ koy fayee ko boor bu xëyee di taaba taaba bàyyi góor soxnaam si kura teg na taabal bàyyi góor li ñu liggéey rek yóbbu kër ga bàyyi góor coono bu ne rek ci waajo bàyyi góor ah bàyyi góor Ça a été dur, mais ça a été fructueux. Mm. et Taï, nous avons un plaisir. un plaisir euh, boo partager avec le monde. Mm-hmm. Euh, nous avons fait du théâtre partout. Mm-hmm. mais cette série Baïgo. Mm-hmm. nga un producteur hors pair. il a d'excellentes relations avec l'ensemble des artistes comédiens. Serigne Modou Kéemaan kooku mooy gaynde kër Sambaraxin Ndiobène ah. voilà gaynde kër Sambaraxin Ndiob sëñ Modou borom Kéemaan. disponible am xam-xam. Mhm. xam li muy def. am ambition. kon tey ñu la remercions vivement. Et nous disons aux entreprises de la place, nous disons aux structures de la place, Il est de lancer appel pour que Baye Bourdi nous ñu parce que buñ ci vraiment jàpp nañ ci tournée nationale la ñuy tournée internationale la ñuy mais télévision oui ku il di nga ah, encore une fois. merci merci mon grand. <laughs>